dikkati naa Idrissa Seck day mooy xanaa mandir ba joo xalaa xalaa doo fi jaar mu lamb buntu président Macky Sall ñu ne ko fii dëgër naa kënkëng idi dellu laal bu opposition bi turbine naan ñooñu naan kon fii dëgër naa kënkëng yéene kaay bi naan man Seck ngi toog fi mu ne ban jaxle Idrissa Seck président Macky Sall da koo dàq mu ñaari jëwrinam le regard ne Sall dafa xaar démission gi ba sonn idi tegu ko président Macky sal ne ko yaag say ministre ale turbine yéene kaay ne ko may ma ma yëgli dama président Macky Sall démb dafa dàqee Idrissa Seck ci conseil économique social ak environnemental waaye tam ñaar ciy jëwrinam président Macky Sall ne toog leen xaar critique yéen a kaay naan man terewul moom Idrissa Seck ma riitil président Macky Sall bind ab bataaxal boo xam ni ma ngi cay riitil kor Mariam laas ne dafa ne kay président Macky Sall danaa wax sa yaay ne ko tu as bien travaillé critique yéen a kaay ne moo taxit riiti gi daal dinay jug ma xalamal lu neex sociale ak environnementale libération yéene kaay ne ñu jébbal ko élevage Amadou Ba it ñu daal koy jébbal sport gannaaw bi nga xam ne yor na primature direct news daal ne fi ne fi réew mi toll ñu ne kuy président de la république Macky kuy premier ministre Amadou Ba ministre du sport ministre de l'élevage kan mooy njiital conseil économique social ak environnemental ñu ne xanaa Abdoulaye Daouda Diallo direct news ne mani équilibre ethnique respecté wuñ ko ci réew mi ne da ko bandum gaa ngi mel ni seen biir turbine yéen kaay ne ma mane la a ñaaw mooy Idrissa Seck dàqu gi ko sàll ngaari lam toora burgéde dàq Idrissa Seck ni fëreet fële ne fi mu ne nag man maay njiital opposition bi Ousmane Sonko ci libération yéen kaay naan man njëkkanteew ma lenn xëccoow ma it njiital opposition bi xam nga nag ay xar bu nu àndee ñëpp ay xar lanu waaye benn bokku ci ak sa morom njëkk te gaa yi bu nee bëreet daal di génn daañu xam dëgg-dëgg kan mooy njiital opposition bi kan mooy adjoint waaye ci biir nit ñi xam ma xamal la ni opposition bi ci boppam ñoo goqi Idrissa Seck xam nga Idi nag dafa mel ni ku doon fo waaye fi mu ne taniga wasaana te amul dara opposition bi nag ñi ngi daw ni <clears throat> Idrissa Seck fu mu jublu gaaye ne ko Idi du fii plan ba nga xam ni Idrissa Seck amoon na ko daal di nërmeelu seey laa ni la ne goo xam ni da nga koo teg ci naaj bi ci escalier bennoo kay tribune yéen kaay ne ma fala daal di bàyyeekoo daal di xaaweeku ci suuf moom Idrissa Seck naan ku may jàpp opposition bi naan kon du ñun de fi mu ne kay Idi génnal ci ñun te dem toog libération libération yéen a kaay naan maan moo taxit docteur Abdourahmane Diouf ma nga naan Idrissa Seck teex teex may ree moo idi koo yam le soleil yéen a kaay naan en ci génnu Idrissa Seck gii daal dinañuy organiser waat nag ñaar ci institution ci réew mi l'observateur naan idée nga naan maay chef opposition bi chef boo xam ni moom Idrissa Seck wéet na ci tanal na caa gën a wéet Idrissa Seck fi mu nekk ci position boo xam ni maar day taali bu doon ci lamb la yéen a kaay bi naan man dan naan kon ni nga sa tànk baaxul idi ni nga taxawee baaxul xoolaatal sa taxawaay lu ko mooy jël bi ñaaw te dina yàgg xam nga boo nekkee ci buum nekk aawa yaay xëy suba yeneen wujju ñëw fees dell ci kër gi jur fak njaboot nga xëy gedd bàyyee leen kër gi ndax dafa metti dem seeti leneen leneen ga nga nekkoon nag neex lool am donkaasi gi beneen borom kër ga nga am teg la fu kawe di la ronkos ay teraanga ba maar day taali nga xool xool xam ne kër alaaji ba woon daal fen du moom nga ne dangay delluwaat ma ne boo dellusiwaatee ci kër gi looy doon tir tribune ne ma en tout cas waa opposition bi nee ñu Idi moom du fi doonaat aawa yaay rang bi kay boo del commencé da ngay toppaat ca ginnaaw te ñoom sax nee ñu gannaaw googee dañoo bëggul bés bi la jour naan fa mu jógee de Sall ngaari moom ma ngay jongle wel moom président Macky Sall daal dara naqariw ko xooluk Sall daal fi mu ne dafa belli le témoin yéen kaay naan maan Idi ak i ministre am dañoo génn moom Sall daal di jël mbiri jébbal ko ña ko saf di doxal fi ne dafa sax taxawul ci benn arrêt moom président Macky Sall ma ngay doxal daal sans Idi ki ministre am le mandat yéen kaay naan maan diggante Idrissa Seck ak président Macky Sall loo ci manti dee git ñaar ñii dina kenn ku fa xasu keneen l'évidence l'évidence yéen kaay naan maan ñi ngi wax de waaye xamuñu nag danger bi nga xam ne président Macky Sall mi ngi ci gannaaw ba mu ñàkkee Idrissa sekk loo ci mënti waxit ab homme d'état la moom idi andi loon président Macky Sall lu bari waaye Sall fi mu ne troisième mandat bee muur boppam bennoo bokk yaakaar bëgg dal ci situation bi am ci réew mi ndax nag mu daal di sacrifier Idrissa Seck waaye Sall daal dana ko rëccu wala wal fajiri mel ni ku naan kon ban bennoo bokk yaakaar ngay wax ndax bi ñu xam benn bi moom fi mu ne ma nga ca ginnaaw bennoo bokk yaakaar tànk am yu kanam tribune yéene kaay ne ko bennoo bokk yaakaar ak allié président Macky Sall yi fi mu ne lépp lu sénégalais yu ruusal lekk nan ko ceer lool ci gafak góorgóorlu te lenn laa ni la andiluñ ko askanu réewum Sénégal Malick Gueye ancien njiital parti populaire ci yéene kaay bi naan présidentiel bu am ci réew mi Ousmane Sonko bokk ci Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp bokk ci Khalifa Babacar Sall bokk ci Karim Meïssa Wade bokk ci présidentiel boobee ma la du ab présidentiel naxee mbaaye 24 heures yéene kaay naan xale yee mat fi mu ne te xale xale yi ñoo ëpp doole te ñooy wote fi mu ne képp koo xam ni wóolootuñ la wóolootuñ say wax xale la dul woteel waa grand place xamal ma ne wuré wa dem na këng Aliou xam le na ni moom candidat la laaj ba kay mooy Aliou Sarr candidat AFP la candidat CAP 2024 la wala it góor social démocrate bi lay daal di représenté en tout cas Aliou moom dëggal na boppam te fan yii ñu jëm dana defub déclaration ministre bu commerce woon niki noonu it bu tourisme ak transport aérien nee na koom réewum Sénégal daal deesu ko dul nag ab politique économique boo xam ne dañuy xool dëgg-dëgg sunu valeur fii ci Afrique mu ànd ak démocratie waaye tam état bi fexe nu mu suqalee ña nga xam ne néew ji doole lañ leen di pee Aliou naan sama candidature bi buy boole la du tax xale fas yéene nag tënku ci bu assise nationale bi gars yi naan kon mbaasay ñooñ danañ ko nangu cap 2024 naan bu Aliou valable na troisième mandat bu président Macky bi bii moo mënta nekk ci réew mi te naan lañu ñu war a njëkk aaye ci réew mi mooy nekk président ba pare nekk chef de parti nekkit njiital conseil supérieur bu magistrature primature Sud Quotidien naan loolu de fi ne mi ngi faagaagal bu baax yoon tribune yéen a kaay xëy jox kàddu Moussa Niang bu gëm sa bopp mu xam le ni président Macky Sall daal génnam gi barki démb gàcceel na képp koo xam ni doomu réew mi nga Moussa naan discours bi discours njiital parti politique la du bu président sénégalais yi di ko xaar ci mbir yoo xam ni am na fulla ak fayda lu ci mel ni njëkk yu cher yi lu ci mel ni lu yaxanal seenu poche lu ci mel ni ñàkku kaaraange goo xam ni mi ngi ci réew mi gaa yaa ngi doon xaar président Macky Sall ci mbënd mi seen gët doon xaar président Macky Sall mu wax ci dossier yi nga xam ne mi ngi mel ni tulleeg maale ku xef ñu yóbbu kaso doon ko xaar ci mu xam le ci lu leer nañ ñi ne ndax dina organiser élection yu leer nañ waaye daal barki Dembo Ndiaye président lam ñu xamal dalul sunu xel te waxul lu soxal askan wi Pape Moussa Traoré naan kon mais Moussa président Macky Sall talal na leen loxo ngir ngeen ñëw dialogue yéen ñi am jafe-jafey parrainage gëm sa bopp ndax du ngeen dem Moussa naan kon am jafe-jafey parrainage xanaa kay ay naxasaale moo am ci réew mi waaye képp ni société civile nga ñu jébbale la ñu déposé xam nga ne jafe-jafey parrainage amuñu ko Moussa naan kon dialogue sax mënta am tànk nag la koy taxa doon dialogue taxawul ndax fi mu ne président Macky Sall loo ci manti dégg lu dul nal opposition bi ba mu raw limang bu fukki loxoog juróom-ñaar jaar naru ko Moussa naan te ci condition yooyu moom wuy jiw ñu le quotidien le quotidien naan man fi mu ne Sall lay doxal de mi ngi xaar nag dialogue politique bi daal di am ba noppi Sall daal di def ab remaniement soppi gouvernement soppi doxalin l'enquête quotidien naan kon bu mu fàtte xool coow la ca ngor jafe jafe-jafe yi nga xam ne xale yaa ngay reyanteeg takk der yi te dara andiwu ko lu dul gendarmerie goo xam ne nee ñu fa mu nekk fi mu ne dafay taañu bu ko yóbbu beneen bërëb am na déggoo goo xam ne amoon na diggante mairie bi ak gendarmerie ci août 2022 terrain ba l'enquête ko di jeene ma nguur gi moo ko moom meeri bi moomu ko waaye Maguette Ndiaye maire bu Ngor ne ñun daal la ñu am yéene ñun Ngor mooy tabax fii ab lycée te goo gee lañ fas yéene matal réew mi ko di jeene dafa am yàllay mottali xoolal ma waa ji nga xam ne jabaru rakkam la topp rek sonal ko moo ne day waa ji am na ay soxna terewul ma nga teg soog jabaru rakk ji sonal ko sonal sonal ba maar day taali mujj gi ba mu xamee ne mënul jot ci xale bu jigéen bi daf koo jël dóor yóbbu nañ ko kaso daaj ko ñetti weer ak lu mën a am mbokk yi ñuy ñaan jàmm te yendoog jàmm abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su nekk xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew